télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. ngir nga mën a sa jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar ni nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar animal fii ci Ladoum TV Ladoum fa am béto fii ma jaar animal téléspectateur Ladoum TV ñoo ngi ci box numéro 10 fii ci CICES mu nekk 14 édition Saladam ñu taxaw ci bergerie bi nga xamante ni si mooy bergerie Touba Darou Salaam taxaw ak benn champion mu nekk xale ñu gis ko muy défilé ay xar ñu gis ko tey ñëw si box bi fekk ko fi ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV boo nuyoowee gis nañ fi benn jeune mâle bu rafet nga présenté ñu jeune mâle boobu. asalaamaaleykum waa Ladoum TV maa leen nuyu. maa ngi tudd Modou Diokhane bergerie Touba Darou Salam As Diokhane maa ngi nuyu téléspectateur Ladoum TV yëpp yëpp. ñu ngi lay fay Modou di la kontaane waaw ñu gis euh, benn jeune mal bu rafet def cuulul macha allah kii mooy kan. Euh, jeune mâle bi mooy njaag nekk doomu Pamboj yaay ji nekk doomu Sitor Sitor nekk doomu Batoñe. oh téléspectateur Ladoum TV Modou présenté ñu Ndiak. Ndiak mi nga xamante ni si mooy doomu Pamboj Pamboj mi nga xamante ni si moo daaneel record pois xar boobu nga xam ni li mu yor ci ay pois kenn xamul nu mu doon macha allah tey kii fan nga yaakaar ne war na fa mën a yóbbu seen élevage. Euh, ndax croisement moom ak ndax moom dañoo jël Pamboj ñu xam ni Pamboj am na doole Pamboj day def LCS ñu jël ko teg ko si euh, doomu Sitor Sitor doomu bâtonnier la te day def hauteur moom tamit. te yaayam moom doomu Calvin Kab la ak Saloum nga xam ne kon dina am beauté dina am hauteur dina am LCS na am poids na am esthétique. ah téléspectateur Ladoum TV dégg ngeen Modou li mu wax de Modou wax na Pellegrin xar bi li nga xam ne moo ko composé li tax ñu boole Pambooj ak yaayu ki nga xamante ni si mooy njaag tey kon gis nañu fi maal bi toll gis nañu. yaayu njaag nekk benn sëtu magistrat kon xam nañ ni rëy ba ak poids ba ak LCS ba ak hauteur ba day génn ci kooku ñuy wax njaag waaw gisaat nañ fi benn femelle femelle bu rafet waaw def cuulul waaw nga présente ñu femelle boobu. Euh, femelle bi moom mooy seexu yaayu njaag moom tamit doomu Sitor la seen yaay nekk doomu Saalum ak Calvin Cap mhm, moom tamit espoir la ne. Mhm. tubaar fakkaala téléspectateur Ladoum TV kii nekk ci yaay ki nga xamante ni si mooy njaag mu ngeen xoolee cuulul bi xam ne njaag cuulul bi da koo donn ci ay maamam macha allah macha allah waaw ba tey gisaat nañ fi beneen grande femelle def robe bu ñuul Modou nga présenté ñu ko. Euh, grande femelle bi doomu Daaru Salaam la Daaru Salaam doomu Maestra Daaru Salaam doomu kii Maestra la ak Lumière Lumière Seexu Soleil moom yaayam doomu Boy Ngañ la yaayam mooy Espresso. Espresso ba nekk Touba. waa Expresso bu nekk Touba mooy yaayam bu nekk si si John. téléspectateur Ladoum TV gis nañu kii ki nga xamante ni si mooy yaayam di Expresso nekk doomu booy ngañ nga xam ne ñii duñu ay caaxaan ay xar yu am doole ay xar yu am macération tey jur lu am doole di jur lu am macération tey kii fan nga yaakaar ni daf fay yóbbu élevage. Euh, kii mën na yóbbu suñu élevage sori ndax jur na def na trois porte kër ga jur na fa ay façon xar yu nekk nga xam ne moom duñ taxaw daal. loolu mooy élevage amelioration ay doomam bu ñu juddoo du taxaw ndax nit ñi niñ leen di songee nga xam ne téléspectateur Ladoum TV bergerie Daaru Salaam ah waaw du ñu ay caaxaan de Touba Daaru Salaam rek du ñu ay foo du ñu ay caaxaan ba tey gisaat nañ fi benn femelle mu ànd ak mboteem mbote bi dafa mel ni mbote mu tooy xepp la nga présenté ñu. Euh, moom yaay ji doomu Samba Lawbe la. ak euh, sa yaayam doomu saalum la Samba Laobé ak benn doomu saalum ñoo ko jur ñu jël ko teg ko ci cappaacóol yi mu jur mbote bi ah téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo mbote moomu nga xam ne nekk mbote mu tooy xepp nekk doomu càppa xam ngeen ni càppa nekk na xar bi nga xamante ni si ak lu élevage ñu ngi koy bàyyi xel borom macération yi borom lumière yi tubaar fakkaal la ñu jël ko teg ko ci femelle bi macha allah mu wàccee ki nga xamante ni si mooy mbote bu tooy xepp bi tey lan nga ñu mën a wax ci lan nga gis ci mbote. ah mbote moom gars yi ku ñëw mbote bi ngay wax rafet na am na ay maturation te li nekk si moom ba mu juddee sax waneeku ko waneeku ko xanaa bu demee ba si kanam nañ gën a xam. macha allah macha allah téléspectateur Ladoum TV gis ngeen Modou li mu wax li mu décortiquer ci mbote mi nee nañu mbote mi ni mu juddoo. waneegul sax li nga xamante ni si moo nekk ci moom kon nañu bàyyi ba mbote mi fendi bis bu fendee ngeen gis lu yéeme li nga xamante ni si Modou wax na leen ko waaw gis nañ fi beneen tëng boo xamante ni si cuulul la. waaw tëng bi tamit moom moom mooy njaay Ndiak mooy Yaay Ndiak moom tamit doomu Sitoor la yaayam doomu Saalum ak Kalmin Kap. ah kii mooy Yaay Ndiak. waaw kii mooy Yaay moom lañ teg ci Pambo Ndiak juddu. téléspectateur Ladoum TV. xool leen yaayu njaag bu ngeen ko xoolee da ngeen di yaakaar ni musul a jur xool leen ko kii xale la mu ngi mel ni ku musul porté tubaar fakal la ci hauteur bi ci LCS bi ci lumière bi ah macha allah tey lan nga ñu mën a wax ci yaayu njaag yaayu njaag moom dafa tëboo xale daal moom ba muy tëbu xale la moo tax mu mel nii mais kii macha allah gis nga seexam bi nu mel te seex bi mënu ko bañ juddoo mhm. macha allah téléspectateur Ladoum TV gis ngeen yaayu njaak mi ngi noonu ak seexam ñu nekk ay xar yu rafet a rafet a rafet macha allah nekk ay doomu Sitor Sitor nekk doomu batoñi nga xamante ni si ñoom seen maam fii am na lu mu fi def moo fi daaneel ci benn tàkkusaan benn record bu kawe boo xamante ni si ak lu élevage ñëpp ba léegi gisaguñu ku daaneel record boobu wala ku toll noonu tey jii tey nga fàttali ñu bergerie fan la nekk ak seen numéro téléphone. numéro téléphone bi 77 la 532 80 61 wala 77 429 87 14. Ladoum TV macha allah daal defoon nañu benn émission kër ga nit yi fu nekk la ñuy woowee nekk Paris ci sous région bi yëpp dañuy woo naañ seen émission bi ngeen defoon Ladoum TV Ladoum TV daal macha allah yal na yàlla barke.